dëgër bopp wala man sama wax ji da nga koo tegul fenn. bokkuñu génération ma ak yow. xamante dëgg rek tamit dama sonn nag ci affaire yi te lu ëpp tugul. ñuus doo j'ai pas envie de parler, ok Je suis trop fatiguée. Tu m'énerves là, là. hey, Yaï, arrête ça, papa. Eh, merde Wacce sa bakk ma sa morom. Yow réew nga, hein Salaamaaleykum. Waaleykum salaam fii. Ndox laa bëggoon quoi dama mën a naan ndox. Man lañ do. Te man ku ma dóor dag may abal yat bi ma am xale yi doon def piscine paate ma rey ca benn xale. mais ñoom léegi jël bakkani doomi aadama ak rey ginaar moom la ñamale. sa mbokku démb mooy sa mbokku tey. justice dina def liggéeyam. ko antan wóolu nga soo bëggee sa caga da koy uti ci mais pas man. merde commencé à l'aimer merde maintenant. ngay duul yow man ombre ma wax papi. Mm. fekkee nga yow yaa ma jigéen lay mujjee boole. gis nga fii yi ma doon xayma ñoo tóor sama moon itam ak moom. ban yabaate laa la wan ba nga osé aisé manqué ñëw taxaw fii nuyuwoo moo pare naa man ki ma àndal kan la te lan moo tax nga koy traité de défaillante pour lan. chers yow amoo ko may jëndee ku di caga bi. et eh, arrête yow yaa a ah? yaay man soo ma baalu sama àdduna day yàqu. ay yaay dooma faay sax. jéem a jàpp jàpp ci jàng. ku jëf ju ñaaw ji kan moom ma koy def. an mbéy mi ku muy doon ko sama doom doom ja an mbéy mi jur naa jaga jur naa wuyu jur sàcc. wàccoo sa ànd benn yoon wàllu